mbokk yi ñu ngi leen di nuyuwaat di leen gërëm bu baax di leen sant ci 30 minutes crono ci solution info TV ci fanweeri minutes yoo xam ne dañ ci fas yéene ànd ak yéen waxtaani actualité politique bi di leen gërëm bu baax di leen sant ci ànd bi ngeen ànd ak ñun Omar Bun Xattaab Gueye nekk ci kàddu gi di gërëm baax El Hadj Modou Diouf topp Ablaye Diallo ci régie bi ñu fas yéene soobu ci waxtaan wi tey ji ponkin rek. bokk na ci choix bi Sonko def ci Bassirou yi fay waxtaan tamit ci ñi demoon seeti président Macky Sall ca palais ba dinañ ci waxtaan mais aussi ma jambal Diagne dinañ ci waxtaan ah les sucres salés ma jambal noonu laa ko tuddee incha allah di ngeen xam lu tax ci kanam ñu door waxtaan wi nag ak li ñeel candidature bu Bassirou Diomaye fay waaw loolu olof yi naan noonu rus na lu noonu bëggoon daluma bu ko neexee jomaay mu wax ko parce que nit ki li muy yéene ak lu suñ borom di namm ci nit dafa wute ndaxte jamono biñ koy jàpp di ko yóbbu ci kaso dem ba bis ñëw ñu war ko bàyyi après six mois de prison ñu jëlaat ay charge yoo xam ne tegoon nañ ko son ko jël lépp tegaat ko ko ci koo xam ne kenn mësu ko gis ci manifestation muy xeex walla ñu yor ngànnaay wala muy xëccanteeg ay takk der kàddoom gi gën a kawe sax bu mës dégg ci manifestation mooy ba ñuy amal meeting Kër Massar ba ca terrain Yékini jour boobu gis nañ bi su lay jooyee su le coup de l'émotion Bassirou ñëw jël micro bi wax jour boobu sax la kàddum gën a kawe à part loolu gis nañ ko ci ay émission fu ne mu toog fa waaw di wax en tant que secrétaire général numéro de Pastef jiite les cadres de Pastef demoon na ba waa yi di mere Bassirou Diomaye fay ci ni lu tax bu ñuy bundu xatal Sonko wala ndaw yi génn moom du génn tontu woon na ci ci émission ci koor gi ci wal fajiri maanaam bi mu defee émission bi ak bi ko jàppee sax yàggul ndax bëgg jàmmam ndax bëgg dalam ci ñi ko xam ci ni ku ragal yàlla la maanaam te man am na lu ma ci xam ndax am na lu ma mës a wax ak moom mi mettit lu yenn yi bakkan yu rot ak yu bari nga xam ni kii yu bari yëngalu ko ku soofe ci àddina am oto am lépp mais bu ko neexee doxe tànku neen mbir ndakaaru nekk ci ay activité am ñu xëy jël charge bu ne teg ko ci kawam bu ne juste pour baare ko pour mu bañ a dem élection mais boobu jaam ak pexem la woon Macky ak ay nguuram ñoo doon pexe parce que publication bi mu njëkk a def def ko ci magistrature bi mais da ko def gars yi jàpp ni dafa bindee xol dafa bindee lii ñu jàpp ko yóbbu mais même buñ ko yóbbee instruction après si mois buñ ko atewul dañ ko war a bàyyi mais charge yi teg Ousmane Sonko lañ jëlaat teg ko Diomaye te loolu liñ ci jublu woon mooy lii ñu dem ba élection di wàcc ñu ne Sonko candidat la moom du candidat ñu yóbbu ko parrainage mu yëngal parrainage bi ñu dem bay génne li su ñu ne matalul loolu xel bu nu ko nangu ñu gis ñoom Amadou Ba dem jëli parrainage yu diaspora bi dugal ko ba mujj mu nekk candidat bi mu demee ba sax war a nekk candidat gis nañ sax ay tappale génn ñu ne ay mandataire Amadou Ba ñemeet El Hadj Sall Amadou Sall ñu ko bind doon ay recours yu ñu dugal pour ñu annuler la candidature ba Bassirou Diomaye Faye mais finalement li ma naan jaam ak pexem parce que liñ bëggoon ñoom ñëpp liñ bëggoon ñoom ñëpp muy conseil constitutionnel di ñoom Amadou Ba ak ñoom Macky Sall ñoom ñëpp mooy Diomaye bañ a nekk candidat Pastef bañ a am candidat boo xam ne Pastef la mais bi yàlla dogalee mu nekk candidat ñu def ko ci list officielle bi. xam ne liste boobu kenn mënatu ko faase kenn mënatu ko faase xanaa leneen xew mais fi mu ne nii kenn mënatu ko faase loolu mooy dogal suñu borom lu tax ma jaar ci lii mais muy ñun nanu nangu dogal suñ ba ak lu yàlla di namm ci nit ndax ba Pastef di jukk ñëpp sonk leen gisoon ci élection présidentielle atum 2024 naka te li olof yi di wax naan ab lañ ci ub géew kenn du ko lañ ci ci mbooloo sàq mi ci mbooloo wala ñu ne gàllaaj bi daan làmb du ñëw ci géew bi kër ga lay des mu mel ne jomaay la suñu borom nëbboon bàyyi ko ca kër ga pour bis mu ñëw génn dem élection te dafa am baat bu sëriñ Abdoulaye doon wax te man may faral di ko wax mu doon baat bu ma neex mooy bari pexe jub moo ko gën bu doon ay pexe rek mooy tee Bassirou Diomaye fay doon candidat du ko doon ay pexe pexe rek du ko doon mais yàlla dogal na pexe mu ne teg nañ ko tey jii candidat la candidature boobu nag tey jii moo yëngal gaañi ci kanam dinaa ci dikk ci li ma jàpp ni moo waral audience yi am li ma jàpp ni moo waral yenn nii mooy daf ci am ñoo xam ne danoo allergie Pastef maanaam allergie Pastef la ñu bëggul ak la fa nekk ak képp ku fa bokk même boo baaxee doonoon yonent sax dina la bonal moo waral charge yi ngay gis ñu leen koy teg maanaam jàpp ay ndaw ca Médina neuf jeunes di def proximité naan fatt fépp di sensibiliser ñu jàpp leen yóbbu leen instruction instruction la leen yóbbu dégg imagine ay xale yu doxantu juróomi jigéen leen ñu ne ñii mën nañu yëngal réew ba yóbbu leen instruction jël ay charge yi ñu tegoon Ousmane ko teg ko ci kaw xale yooyu maanaam loolu nekkatul affaire yoon affaire wu lii la bañ bañ mooy ñii ñi maanaam parce que fu kenn baaxu fa ñoom loolu lañ jàpp léegi lool bu amee mooy yenn gis-gis yi ñenn ñi am ci Pastef loolu moo indi yi xew yépp man du ma ne Pastef yépp a baax de du ma ne Pastef yépp ñoo jub du ma ko wax mais am na ñu baax Basiru loo koy waxal. loo koy waxal mais pourtant lépp luñ teg rek ci nitu Pastef teg nañ ko ko mais tey nekk na candidat loolu nag li nga ci jàngee mooy le coaching intelligent de Ousmane sonk moom laa tuddee chronique bi tey parce que tey ji bari na ñuy rapp di tëb di dal ba ci opposition bi ak ñi bokk yeewi askan wi tey jii ànd jeeg Macky Sall wala Amadou Ba moo leen gënal ànd ak Jomaay musuñu bëgg Ousmane Sonko musuñu ko gëm mais yàlla bu la bëggee dimbali day fekk ngay nelaw mun la pakk pakk ba nga jóg mun la yeewul xoolal di nga Ousmane Sonko xam nga ñoo ko yee Barthélemy Diaz ak Khalifa Sall di nga Barthélemy Diaz ak Khalifa Sall buñ génnul woon des yeewi askan wi. Ousmane Sonko njuumte yi mu juumoon ci ñoom dina ko juumal ci ñeneen mais coup bi mu jël ci diggante moom ak Barthélemy moo ko jàngal nit parce que li ko Barthélemy wan ak fi ko sënko tegoon tey jii bu doon ni Barthélemy continue di nekk ci Yewwi Askan Wi fidèle ak Sonko tey ji Sonko mun na dem sax ba pare parrainage yi ñu naan ay Cheikh Tidiane Dièye ak si mu jox ko Barthélemy Barthélemy dem jël réew mi war ko mën na ne mais yàlla des fois da lay dimbali. dalay dimbali jaar-jaar loolu tax mu baax loolu tubaab bi naan c'est dans l'épreuve qu'on reconnaît les meilleurs ci bis yi métti yi ngay xam ñan ñooy gor mais ñan ñooy jaam yi loolu da Barthélemy Dias dañ ko war a gërëm sant ko Ousmane Sonko dafa war a julli ñaar ràkk sant ko xamul tax bu du woo moom du yeewu du xam parce que Sonko gëmoon na Barthélemy ah ci terrain xar yàlla fii ak ndakaaru bi ñu tànnee Soham Wardini xalifa Soham Wardini la bëggoon de surtout les xalifistes am na lu ma ci xam bari na ci ñoo xam ne Soham lan bëggoon mu nekk candidat bi mais pourtant ak patriote def de telle sorte que nu jëm jëli Barthélemy tey jii Barthélemy moomu tey jii bokk na ci ñi gën a hostile ci Ousmane Sonko Barthélemy boobu nag parenthèse la woon moo jàngal Sonko tey fi mu jëm. ba tax mu Bakar feggu bi mu tànnee Habib si tànn Cheikh Tidiane mën a gën a jege gën a yay Basiru mi xaar ma teg ko sama wet ndax xamewu ma ko jaaxaan te dërëm bi du génn gaal gi Pastef la ak lu mën a xew ëllëg Pastef la parce que ñii nag ku mu ci mën a doon mën nga falu ëllëg wor ndax Sénégal dañu ko tàmmal ñun doonoo jàpp ni wor du baar du dara ñun doonoo jàpp ni en loo bëgg a def def ko en amul éthique amul dara mu indi Basiru loolu tey jii mooy coup bi dal ñu bari ci opposition bi ji nga buñ yaakaaree ni opposition bi am na ñu ciy génn di jàppale Jomaay même bu Jomaay demal deuxième tour ak Amadou Ba duñ jàppale Jomaay bañ du bëgg man sama wax du neex bañ du bëgg Pastef la ñu bëggul Ousmane Sonko la ñu bëggul ak njabootam te bari na ci ñi nekk Yewwi Askan Wi tey jii daf mel ni ku lañ jël parce que jàppoon nañ ni Pastef du am candidat. Ousmane Sonko day tëgg ca pale ba dugal benn candidature kese mooy candidature am comme ni ko Karim Wade mi def tey ba tax mu wër di jooy naka xalifa defoon en deux mille dix-neuf mooy jël candidature bi jox ko keneen parce que am na ñu nekk ci Yewwi Askan Wi danoo foogoon ni ba ñuy dugal seen candidature mooy candidature Ousmane Sonko du jàll te bu jàllul Ousmane da leen joxoñ ñoom loolu lañ gëmoon. <laughs> li may wax nii ñu may dégg xam nan ko ay ñi nekkoon yeew yi je ne vais pas citer comme danoo nekk ci élection te candidat bu ne am na ñu ko bëgg am na ñu ko gëm doo tudd benn candidat mais mën naa liyaar dafa am benn candidat bu bokk yeewee askan wi tey jii candidat la ci élection présidentielle candidat boobu dafa am benn jamono bi Idrissa Seck fekkee Macky Sall Idrissa fekki fekkee Macky ma daje ku ko xam koo xam ne ku ko jege la foo leen gis ñooy ànd yàlla dogal ma seeti ko ma génn na ko grand maye yoon dégg naa da ngeen di dem de dama ko doon cokkaas dégg naa ci ñi makki woo ci ngeen bokk mun a woon nañ ñu mu ne woon nañ <laughs> ñu mais daal ñu ngi xool quoi parce que li ñu proposé ci mag yi daal gis ñu suñ bopp daal ñun daal suñ daraja ëpp na loolu mais tamit am nañ beneen choix quoi boo xam ne moo tax tamit ñuy tey. mooy danoo jàpp ni Ousmane Sonko du bokk élection li may wax ni am na ñaari at ci ginnaaw mooy bi idi demee mu ne dama Ousmane Sonko du bokk te Ousmane Sonko bu bokkul candidature am ci yeewi lay génn te comme ñun amuñu benn dossier ci wàllu yoon amuñu lu ñu mën a gàllankoor moo tax ñun dañuy des dans l'opposition pour mën a dem élection xam ne koo gëmul Ousmane Sonko mais dafa xalaatoon ni Ousmane Sonko du bokk te daan na toog ci réunion yeew yi ba boobu kën jàppagul Ousmane Sonko wala dara ah bii wax di défendre Ousmane Sonko di fëgg dënn lu ne mu def ko naka moom ci xel mi mooy ma moom ma ñu toog ci plate day toog de day toog ci conférence de presse yi yu yeew yi di défendre Ousmane Sonko naan ku ko laal laal ñu Ousmane day bokk législative yi locales yi mais ji nga bu élection yi xala te ñi ko jege xam na ni waa ji bëggul Ousmane Sonko bokk te moom loolu lay waxee ci plateau yi moom bëggul Ousmane Sonko bokk mais est-ce que seetlu ngeen Sénégal bu baax a baax maanaam nit ku mel noonu mais ku mel noonu mën na nax ku ne ah mais mun na tromper ku ne te dafa bari ci yeew yi ñu mel noonu loolu dem bi ma invité jante xaw na mu ko junj tuuti lu tax ñu créé Lacoste dem beru ne parce que y avait des taupes di avait du n'importe quoi parce que dañuy toog wax li ñuy wax ñu pare wax ji senn wala mu dem ci presse bi wala waa présidence jot ci kon Ousmane sonk yàgg nañ ko wor léegi nag wóor yooyu tey jii moo ko jàngal ba mu bakkar feggu candidature bu Jomaay Fay mi Ousmane di Jomaay ñu bari danoo jàppoon na jun bokk looloo tax Ousmane Sonko tey jii mii moom di Jomaay am na ñoo xam ne bu ñu xamoon dañuy bokk dañuy wéy di des ci seen ginnaaw di leen jàppale mais béy wéy na mbuus dañuy dem élection dañuy dem élection mais ñoom dañoo jàppoon ne njabootu Pastef ak électorat bu Pastef ñoom dañ koy bénéficier woo moo tax fépp du question dañoo gëmoon Ousmane Sonko de mais fu leen Ousmane Sonko woon ñu dem fu leen Ousmane mais bu Ousmane duggee ci kaso beeg léegi ci ñooñu ñan nga ci gis ñu organiser manifestation di jàppale Ousmane Sonko lu dul seeti naa ko prison lu dul lii mais organiser manifestation rek apporter ko soutien jour bi ñu koy jëli këram vendredi boobu. amul benn mobilisation wala taxawaay bu am kenn nangul jël risque pour Ousmane Sonko alors que Ousmane Sonko jël na risque yu ne pour ñoom tey ji moo ko yóbbee lii sax li mu nekk nii. looloo tax ñi naan pouvoir bi naan Macky Sall naan kii non dans l'opposition ba ci waa PDS yi tey jii di jooy naan dañuy résister mais on avait l'impression que. ñoom Macky Sall du seen opposant ñoom ñoom buñ la boo invité ci plateau li ñuy njëkk ñun duñ taal réew mi duñ ànd ak toj réew mi duñ lii di rapproché wu Macky Sall mais seen wax yëpp gaaruwaale Ousmane Sonko la mais yeneen néeg la borom a cay fanaan diaboliser nañ Pastef diaboliser nañ lépp mais tey lii la suñ boroom dogal Pastef day dem élection beneen bi si topp. da ngay dégg au lieu ñu wax ak Macky Sall mais Mimi Touré Mimi Touré Mimi Touré te pourtant Mimi lépp lu mu def si traque des biens ak acquis def ko contre Karim Wade mais yi moo doon président de la République bu ne waaw ñu ne waaw bu nee déet ñu ne déet loolu tax dem bu ne Mayoro fay dem na mais Mayoro Faye demul dafa mës a tàqali yi bay dem PDS Mayoro fi la fi gedd PDS dem Benno Benno daanu ka ñu ne Karim candidat la day waaj a nekk candidat Mayoro dem dugaat PDS Karim nekkul candidat dem mu dellu pale ñu naan dafay représenter PDS boppam la loolu lijjanti xanaa il faut être loolu tax PDS li leen dal doo ci génne seen loxo dañ doon lijjanti far la jël danoo dugg ci guta do bari na ci PDS ñoo xam ne danoo bokk ci coow li te xamuñu lu ko waral PDS ay jàmbaar leen les militants à la base ay jàmbaar leen de mais li Karim Wade ne xamuñu ci dara te ñi ci xam dara jëloon noonu seen matukaay bu yàgg bu ne la Babacar Gaye dem na ñun la Omar Sarr dem na ñun la Mayoro dem na ah maanaam PDS doole ji lépp dem fekki yi te ñoom ñu bëgg nguur nguur Macky Sall di jeex ñu bàyyi fa Karim Wade ñukk dem di fekki yi yëgoon nañ lii li xew ni dara bettu leen ci te PDS ak Macky réeroo amu ci ba tey jii man loolu laa gëm ñi naan Amadou Ba lii am PDS duñ tudd mukk Macky Sall xoolal tey jii nan la ab kandidaa ñu naan ko Karim Wade ay këyitam matul nationalité française double nationalité conseil constitutionnel na ko demal taxaw fële yow doo doon candidat ah doo doon candidat léegi ñu dem pale président di dalal seen xel. ñu xëy ñu ne la bureau de l' assemblée nationale woote nan pour une enquête parlementaire su la dossier de Karim Wade teg ci ñu def ko ci mode fast gaawantu lu mës a am du jamais vu tey journaliste ko bind na ko du jamais vu Sénégal assemblée mën a woote le jour ñu wuy ji le jour pour lan pour benn jëmm pour Karim Wade mais Karim bu mënta bokk daa gën Ousmane ko te candidature Ousmane Sonko moo gën a légitime bu Karim Wade te dëgg Macky Sall nekkatul candidat weere ko dese ci réew mi mais na maanu te rafet ci na leen mën a lijjante ba Karim Wade duggaat léegi xanaa léegi léegi doonoo mat doonoo nekk ci mattu nawetaan mais bu dee election yi dañ ko bëgg soppi nawetaan ñan ñu wax mooy porté nañu jour bi ñii def nañu réserve jour bi mën na jouer parce que am na licence déposé ñun bi ñuy fubal nawetaan <laughs> yooyu gis ah mais ci élection présidentielle lañ ne lu sérieux depuis ji nga vingt bii passé vingt candidats yooyu jàll yooyu dem élection kenn mënu ci bokk kim yàlla gi so Sonko teg nañ ko li ñu ko teg jël nañ article trent teg ko ci kawam def lu leen neex ni ko professeur kër gay waxee war a dem waat Casamance ci sabal si fay attuwaat dossier bi le conseil constitutionnel dossier bi eggagul mu sukkandiku ci atem Mame Mbaye Niang alors que au début la lan doon wax dossier incomplet tey jii bu dee am na ku waroon a bokk ci élection yi Sonko la war a doon nin ko écarté du dëgg du yoon waaye gëm na yàlla dem teg jomaay PDS li ñu waroon def bi nga xamee ne Karim du ñëw nan uti ab plan B comme ni ko Pastef defee il faut apprendre de ses erreurs juum juumaat tey ko la mënoo juum 2019 juum 2024 PDS kenn tooñu leen Karim Wade moo leen tooñ bu buggul bokk na leen wax du bokk bu buggul ñëw na leen wax du ñëw assemblée nationale bi nag bu ñu yàpp élection yi mënatuñ ci dara dara dara élection yi day am mais il faut que ñu sérieux xam ne nekkuñu ci machine nawetaan comme ni mu ko waxee ay réserve ay portée ay licence déposée mën na jouer non c'est pas ça demul noonu lii lu sérieux la la liste elle est définitive vingt candidats lañuy am ñi mu tobook duñ bokk jeex na ñu dem ku mën a gañe gañe ku mën sa moroom duma même loolu nag moom may indi ci recalé yi mais recalé yi kuñ yàpp moo tax démb président Macky Sall xaw na nag wax leen waxi nit wax na leen waxi nit fi processus bu toll démb ñu di seede DG génne carte électorale bi ñu ñëw taxaw ñoom ñëpp kenn nangul tudd rapport waaye boo ubbee seen xel yi rapport moo ci ne mais ñoom tey jii buñ doon buñ doon buñ bëggoon a bokkaat élection nan la ñuy bokkee à un mois des élections est-ce que tous ces candidats là tey jii da war a jël seen dossier di ko càmbaraat te bari na ci ñoo xam ne dañuy sóob du ma tudd tur man j'aime pas mais amuñu parenage amuñu parrainage. billaahi amuñu parrainage conseil constitutionnel da leen wàññil mu leer amuñu benn parrainage liggéeyul lu tax ñu war a am parrainage koo xam ne yow 6 mois ci ginnaaw yaa ngi ci Macky Sall dooley bennoo nga doon xeexee mais boo génnee bennoo te amoo base politique bu dëgër Cheikh Tidiane Gazo lan mooy base am Mohamed benn Diop lan mooy base politique am ah Cheikh Bamba Dièye ndar ga mu féete lan la fa am. depuis mu jóge fa nekk maire lan la fa am na ñoo xam ne depuis que parrainage ñoo fi ñu nekk candidat parce que bu dul seen jëmm amuñu mbooloo mu leen mën a liggéeyal politiquement pour ñu mën a jàll dem ko des fois Aliou Sarr Aliou Sarr nekkoon fi ministre du commerce nekkoon fi lépp dëkk nooto jabaas gi mais Aliou Sarr mais dooley AFP la daan bëre mais bu génnee AFP mënutul am dara ñii ñëpp amul ku ci am légitimité politique légitimité historique légitimité traditionnelle ak légitimité charismatique pour mën dem élection mun ñu amal dara seen bopp dañ leen daan boot léegi nag sa morom yi di njëkkanti daw nga naan boot ma ma daw ñoom foof lañ toll maanaam seen morom yi njëkkante ba egg naan la 25 nañuy bëre ji ñoom nag ñu taxaw naan Macky Sall boot ñu ñu daw boot ñu ñoom foofu lañ toll maanaam boot ñu ñun ñu daw pour mën a dab gaa yi. mënul ne kon audience bi waroon am mais Macky warul leen woon dalal man audience su tàggatoo ak namante laa ko laa ko teg maanaam tàggatook ak Macky mënoon nañ ko tuddee noonu loolu daal li leen Macky Sall tontu lu wér la lu wér la mooy processus bi fi mu toll nii moom mënatu ci dara de Sonko wax na ko de mooy bi gars yi bindee lettre bi Sonko wax na leen ko de Sonko ne leen processus bii. déclenché nañ ko te lii li mën a tee élection am maa la di taale yàlla mu am kon des fois il faut être sérieux mais ñoom ñëpp sànq ni mu ko doon waxee la candidature de Pastef moo leen troublé candidature Pastef moo leen troublé loolu tax démb bi ñu demee ba amatul lu ñu wax ñu naan ay liberté provisoire pour Diomaye Macky Sall du justice bu du moom mooy may liberté provisoire di nga Macky Sall li mu def ci bopp sénégalais yi loolu sénégalais bu ko gëm yaa ngi il faut nga wax ak Macky il faut nga jubóog Macky conseil constitutionnel wane na ni nag quelque part ni mbir yi du Macky de ku bëgg a doon candidat da ngay liggéey maam lépp matul naam ni ko defee lépp baaxul même ñi gëmoon ni jomaay du bokk sax foofu lañ ko tegoon mooy lu Macky bañ rek conseil constitutionnel da koy bañ li mu bëgg la conseil constitutionnel di def mais am na fu mbir yu toll day day sori Macky surtout président boo xam ne un mois moo ko fi desee dafa jaral kenn di xaru. ku sañ nag am way bu rafet ku sañ am mujj wu rafet conseil concerné ñoo xam ne am na plus de soixante dix ans daa am loo xam ne ñoom aussi tamit seen xel da ciy dem te am loo xam ne bu ko xel nangoo ngor da koy bañ écarte Sonko écarte Diomaye foo koy teg kon tey jii les recalés nan bañ a dugg ci ku mënul lu yàq yow a ñoom waruñu yàq buñ mënta defar ñu yàq nan dem dugg ci biir coalition yi en deux mille dix-neuf bi ñëpp defee cinq ñu cinq candidats ñoo fi amoon deux mille dix neuf cinq candidats mais dé bu ñu ba mbir yi jeex mais qu'est-ce qu'on qu'est-ce qu'on a deux mille dix neuf mais ñii danoo dem coalition Idy ñii dem Benno jàppale yi ñii dem ci Sonko mais nan ko defaat noonu ku mu ne ci ñoom am na loo gëm dem ca ah di guy guylu tamatoo këriñ nag loolu du nga ko nangu. bokkuñu mi ngi mel ne Coupe d'Afrique de Nations bi équipe yu toog ne danoo équipe yu toog dem dajeeg président fi kaaf naan ko waa ñun danoo toog léegi nan lay defar ba bokk ci tournoi bi ku toog xas ba toog même boo toogee injustement toog nga tu es éliminé na gars yi waaj ñu dem bëre ji képp ku sénégalais yi wóolu ñu dénk la réew mi mais ñi ñëpp coaching gagnant ak intelligent bi Sonko def ci jomaay moo leen bett am na ñoo xam ne réew mi yéene nañ ko ñëpp ba mu des Pastef bokk na ci recalés yi ñu bari li may wax ni en la boo xam ne doo xam boo leen laajoon lan la sax du ko lii te ci ñooñ bokk na ci ma jambal heure bu xëyee bindu chronique am yónni sucré salé mooy non candidature bi Cheikh Tidiane Dièye Diomaye ak Habib Sy déggoowunu démb jante wax na ko nee na réunion ban doon wax naan sax Cheikh Tidiane da doon bañ Cheikh Tidiane teewu fa pourtant xëy nañ bind ko pour jaxase fan la leen doon wax jomaay du bokk tey jii bokk na ma jambal moo fi toog ne depuis Sonko dugg kaso réew mi daa nekk ci yàmm kon kay kaaw bi président di wax moom kaaw boobu fu mu jóge xanaa waa PDS yi waaj résisté la tey jii yamul ci loolu ñu xëy démb mu ne noo gars yi danoo réeroo te fi mu ne Sonko dafa nekk ci ay xat-xat ndaxte dafa am problème mu choix ci diggante Cheikh Tidiane Habib ak kii Sonko ak Jomaay euh, maanaam di yëngal te njëkkewu ko tey mooy bi Sonko ne Jomaay na dem parrainage parce que bi ñuy déposé parrainage yi cinq ñoo déposé woon cinq mooy Jomaay hmm, Biram Souley Abbas euh, El Malik oui c'est bien El Malik am am na keneen ñu ne nañ dem jëli parrainage pour waajal bindee ndee ba Sonko def soo am ci ma Madiambal dafa génn dem Seneweb dem Sen TV lu mu wax mooy Birame Souleye dafa mer Birame Souleye dafa mer ci liñ tànn Diomaye parce que prison la ne mais Diomaye Diomaye à part Sonko c'est le candidat légitime de Pastef le coordinateur des cadres le vice euh, le numéro 2 du parti le secretaire général du parti mais parti day am hiérarchie tey ji APR ak Amadou Ba problème bi ñu am mooy Macky ba mu waree structurer APR dafa ko à part ku topp ci moom mais bu ñëpp xamoon ni Amadou Ba moo topp ci moom bu ko tànnee kenn du mer mais parti la boo xam ne dañ ko defoon une armée mexicaine tey ji li problème bi bennoo am ci erreur Macky Sall ba ñàkk structuré bennoo Amadou Ba kenn waxul amul légitimité jàng na mat na ko mais le problème mooy parti bi leen structuré wul ba après yi xamuñu kan la léegi nag erreur boobu Macky def mais ci la Sonko jànge mooy parti loo ko jiite jiite jiite bul jàpp ne yaa ko moom boo nee man la ñu jiital da nga war a jël keneen toftal ci kanam parti Pastef mooy parti boo xam ne tey jii boo nee Sonko di nga ci teg Jomaay boo nee Jomaay teg ci su Souleye boo jugee ci Birame Souleye am na ku taxaw seetlu woo Jomaay bi mu duggee kaso poste am kan lañ ko jox Ayib Daffé bi jàppee le représentant des jeunes danoo jël keneen teg ko maanaam parti la boo xam ne avant ñu koy tas maanaam du nu nangu fépp am vide parce que la nature a horreur du vide erreur yooyu tey jii ñu def ñoom waa Benno yi ba Amadou Ba am problème légitimité ci seen biir ñi naan waaw ñu ne déet erreur boobu dañ ci jàngee Diomaye même en prison day am la même légitimité que Sonko mooy parti la bu ñu organiser parti la boo xam ne dafa am lii di organisation am structure yu baax léegi nag ñi ngi dem ci élection ku gañ a baax na mais l'essentiel mooy vingt yu ñu tànn ñun ñu tey du ñàkk bu ñu doon tànn dañuy bàyyi Karim jàll bu doon ci ñun la sukkandiku dañuy bàyyi Sonko jàll bàyyi keneen ak keneen jàll mais tey jii liñ ci jàng rek mooy parrainage bi dafa échec parce que en de deux mille dix-sept ak 2012 ñu am 14 15 candidats 2017 2017 15 waa 2017 15 2012 14 2019 5 ñu ne léegi def nañu parrainage danoo war a segg ñu ne parrainage pour wàññi candidat la ñu def parrainage am 20 candidats mooy wane ni parrainage bi résultat yi mu jur baaxul aussi parce que li taxoon a jur parrainage dañ ko lekk parce que jamono yi nu amul parrainage daaw ñu am 20 candidats. ñu def parrainage am vingt candidats saa montre que bu ñu jugee ci li war nañ xoolaat parrainage bi xoolaat fichier électoral bi xoolaat lu bari mais béy wéy na mbuus kon di gërëm ñëpp di leen euh, sant di jégalu ñëpp di baalu ak ñëpp di gërëm El Hadji Modou Diouf Abdou Top ak Ablaye di ñaanal ñëpp euh, jàmm kon euh, ba beneen alxamis incha allah.